màggalug Touba nag saa suñu ko tuddee suñu xel day dem ci taskatu xibaar yi nga xam ne fu nekk dañu fay bawoo ngir ñëw fekke si mbir mu ni mel lool nag waral na comité d'organisation bu màggalug Touba ak ñi nga xam ne ñoo di waa daayira Sooratu Nabahin di kuréel gu lëkkale ay taskatu xibaar yoo xam ne ay murid lañu ñu ànd ak waa association des professionnels de la presse en ligne di Bawal amal lël boo xam ne dañ ci doon tàggat taskatu xibaar yi buy xam ne taskatu xibaar yu bawoo ci daayira Sooratu Namay dajale seeni naataango ngir rek tàggat leen ci yenn anam lañu war a jaarale seenub liggéey ci jamonoy màggaluk Touba mbir mu ni mel nag ñu amal ko ci ndimbalu ki nga xam ne moo jiite commission culture et communication bu màggaluk Touba Serigne Cheikh Abdou Lahad gaynde Gaynde ma moom nag Serigne bi mu rafetlu mbir mu ni mel lool dem ba jàpp ne faw rek ñu koy def ñetti weer yu nekk ndax nag jamono ji lii ay taskatu xibaar ci diwaan bu Touba bari nañu lool. di leen euh, ñaanal yàlla rek ngeen gën a wéyal nii ngeen di def ngeen gën a kurélu gën a seen professionnalisme yéen a ngi ci yéen a ci yoon li ngeen def nii lu baax la ñoom itam nañ leen baax li nga xam ne wax nañ ko fi tey jii buñ ko mënee bind ci ay kayit xaatim ko jox leen ko ngeen di continuer di ko nafar euh, ñetti weer yi ñuy toog lu mel ni ñu organiser ko loolu aussi yéen yéen a waxtaan wi su boobaa ngeen def ay euh, ay module ñu nekkat tey danañu ñëw waxtaan ci dem sàngam ñu waajal ko du nekk waxtu màggal jot dina am temps bi dina yaatu ñu dikk toog dajaloo waxtaan loolu foog naa bu ngeen defee ren ba déwén ñëpp danañ gis ak jokk ci ñoom li ngeen wax si aussi ci école journalisme bi loolu man may rafetlu la sama xel mu si nekk mais lu mat a seq ay jéego la te man personnellement dinaa seq ay jéego ñu xool naka la ñu amee kër goo xam ne fii day euh, day day former journaliste yi fi nekk formation continue ak kër goo xam ne également koo xamante ne bii dafa jàngoon ba am bac bëgg def journalisme mu am possibilité dugg fa nekk journaliste. leneen loo xam ne sëriñ bi àdduna ci mooy ay kàddu cant ak ngërëm mu jagleel ko ñi nga xam ne ñoo di waa daayira Suratu Nabahi leneen lu mu xam ne mooy mu ngi sàkku ci ñoom ñu gën a ubbeeku ci seen yëngu-yëngu ci dëkk bu sell bii di Touba. di sant itam nag seen euh, formateur yi. Euh, muy waa Sourate Naba yi maa ngi leen sant leen gërëm sëñ daxa wax leen rafetlu ko ñaanam googee ak na ca xolam sedde woon jàpp naa ne moo sabab lii ak ni mbir yi te mënoon na jafe lool waaye lépp jàppande lii nii mën naa ne diggante alxames ak tey liñ ci def lépp ci lañ ko ci def kon barke ba moo ñu moo ñu topp kon yéen itam maa ngi leen sant maa ngi leen di gërëm comme ni ma ko waxee ñee rek di leen doole ñaax yéen itam nag ngeen gën góor góorgóorlu xam ne am ngeen liggéey ngeen yaatu dënn yaatal duggante ak seen ay mbokk taalibe kenn ku nekk yokk moroomam bu loolu amee rek li nga xam ne moom lañu bëgg ci fànn gi ngeen nekk sëñ bi dana ko am ci yéen te bañ jógee ca euh, sëñ Muntaxa def ci sëñ Bas moom moo wax ci làmmiñam daal leen da ngeen tàggat ñi fi nekk fekk ñun waxalaat nañ ko ba waaye waxuñu ko moom moo ko waxal boppam nga xam ne kon lii tim day mel ci ndigal lañu ko def. ñëwoon nag teewe mbir mu ni mel ay taskatu xibaar yu bari bawoo ci ay organes yu wute ñoomit it am mbégte lool ci li nga xam ne mooy lal bu ni mel mu ne nag yàgg nañ bëgg ay nit ñoo xam ne danañ leen gën a tàggat jëmale ci seenub liggéey te mësuñu koo am mbir mu ni mel nag ñu rafetlu ko lool te di sàkku ñu ci biir dëkk bu sell bii di Touba. ñëw na ci waxtu wi nga xam ne nii soxla woon nañ ko dañuy tàmbali di sant Serigne Cheikh Abdou moom mi nga xam ne nii moo xalaat xalaat bi woo ñu ci ndax nekk na loo xam ne nii itam li tax mu gën a dal suñu xel dañ koo def ci jamono yi nga xam ne nii wala dañ koo tabbal ci événement bi nga xam ne nii moo événement bi nga xam ne moo gën a nekk mbégte ci mboolem murit yi ba tax na lépp lu ci tàbbi rek ñu am yaakaar ni dina dem ba liñ ciy sàkku muy ngërëmal sëriñ bi ñu am ko liggéey la te liggéey jaamu yàlla jaamu yàlla liggéeyal Serigne Touba ndax niñ ko waxee buñ sukkandikoo ci borom xam-xam yi nga xam ne nii ñu ngi ñu doon jox seen xam-xam ci métier mi ñuy liggéey euh, ku nekk la nga nekk ca ngay mën a jaamoo suñ borom te jaamu yàlla gi weesuwul na ngay liggéey muy sell la nga cay jëlee nga cay teddal sa njaboot di ci joxe addiya te yaakaar naa ne ku nekk ci ñun bu fekkee itam am nga leneen looy def itam ñu ëpp ci ñun métier mi xëy na ci la xëy ci la ñuy gont seen teraanga ci lay euh, jóge kon sëriñ bi ginnaaw bi ñu la sante bu baax a baax ci turu mbooloo mi ñu ngi gën a sàkkuwaat bu baax a baax lii jëm kanam ndax ni ko ñoom sëñ Habib waxee ak formateur yi li ak njaalbeen la ab début boo xam ne nii incha allah dañuy dem a dem a dem dañuy ñaan ba dem ba benn instant képp koo xam ne ni yaa ngi ci presse bi wala nga teew fii wala nga ñàkk fi teew dem ba dam ñu ci liggéey bu am solo bi nga xam ne nii lu ëpp ci ñun mën na ne bin duggee ci métier mi ba léegi tey ndaje mi c'est la première fois ñu fekkee ko kon ndaje la moo xam ne nii dañoo waroon a dagg paas réew ba réew dëkk ba dëkk walla ñu yëkkati xaalis bu bëri def ci ñu door ñu ko amal waaye gis nañ ni wax dëgg yàlla au contraire ñoom ñoo jël seeni i xéewal wala ñoo jël seen lépp jox ñu ko te li gën a précieux muy temps gis nañ suba ak léegi ñu ngi ñu jox seen temps jox ñu seen xam-xam nga xam ne ay millions sax boo leen ko doon jox taxul nga jënd leen la jox tey jii ci wàllum xam-xam kon ñu ngi gërëm di leen ñaanal suñu borom gën la yàggal taxawaay gën a leeral xam-xam bi leneen li nga xam ne ni itam suñu mbokk yi yóbbante yóbbante nañu ko mooy lépp li nga xam ne nii waxtaane nañ ko fi tey na nekk loo xam ne nii luy wéy lay doon dama dem ba lépp luy information lépp luy tasum xibaar ci Touba dem ba suñu borom dogal ñu koy saytul Serigne Touba Cheikhul xaddim ci dëkkam bi te loolu yaakaar naa ne yoon wii ñu tracé tey buñ ci awee ñun ñëpp mën nañoo dem a dem ba. Euh, bénéficié wu ci mën nañoo dem a dem ba yéen a joon ñu am ci liggéey Serigne Touba ñu am ko. daayira Suratu Namay lëkkale ay taskatu xibaar yoo xam ne ay murid lañ ñoom it dikkaat nañ ci lu yaatu ci kuréel googu nga xam ne moo di Suratu Namay ak lu waral ñu taxawal ko. bi nga xamante ni bii Serigne Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma mii am na yéene liggéey Serigne Touba xamal ñu ni dama bëgg nga dajale presse bi. képp koo xamante ni taskatu xibaar la murit nga dajale leen fexe leen boole ci génn kuréel suñu am wax na ko sànq bari na loo xamante ni dafay ñëw ci yoon wi te laaj na ña koy wax ñu orienté leen laaj na li ñuy wax riposte ak veille saa yu ne muy am ci yoon bi kem ni muy amee ci réew yëpp kem ni muy amee ci obédience yëpp man de bi ko sëñ bi di wax sax xam naa nee naa sëñ bi de lii de xaw naa diis de waaye ndekete booba xëy na dañoo bëgg a dimbale rek ñoo bëgg a dimbali teg ñu aw yoon ci laa wooye sëñ am Jóob ñu ànd ci liggéey boobu ci ndigalul sëriñ bi sëriñ bi ci mbaaxam mu dalal ñu këram dal ni li ngeen def lu mat junni nit mën na cee bokk waaye tàmbalee leen ko ci ñaar fukki nit ak juróom-ñett rek yemal leen ko ci boo leen ko defee ñu dem ci sëñ bi bu ko defee bu boobaa sëñ bi bu leen ñaanalee di ngeen ko mën a ubbi képp koo xamante ni taskatu xibaar la te li ngeen di yég mu koy yég di ngeen ko mën a ànd ak moom. loola bañ ko defee ku ne gis na la 2 septembre dañoo ñëw ci kanamu sëriñ bi yéen ñii ñëpp am nañu ca woon waaye xëy na booba sax xamuñu woon dëgg dëgg mbooloo mi fan la jëm sëñ bi ñaan daal dañuy tudde sóoratu naba yi mu doon mbégte mu rëy moo xamante ni bii ci boroom xam-xam yi ñoom sëñ Cheikh Mbacke. nee nañu ah amaana ñu gis tey euh, daayira wala bokk mbooloo muñ tuddee euh, suratul alxuraan muy tawféex yu ñun sëriñ bi yemu ca mu daal li ñuy wax nañ def suñu plan d'action dem nañ ba ñun ñi nga xamante ni bi ñoo nekk ci ñaar fukki juróom-ñett dañu am benn groupe boo xamante ni moom bëggu sax dugg bëggu ci sax ñu dugal ko ci danee xalaat leen lu ngeen xalaat loo xamante ni bii mën naa doxal liggéey bi nekk leen ca man bu ngeen ma waxee rek lépp loo xamante ni bi jëm na seen plan d'action ak luy doxal liggéey bi ba li ñu bëgg ñu am ko rek maa ngi seen ginnaaw moo indi lii mënuñu fexe leen ba fii ak màggal ngeen am ay action yu ngeen posé action yooyu ci sama xel moo gàtt rek ak xelu sañu am ak gars yi ma àndal dañu ni nañu teg bureau ñu teg bureau bu ñu paree ci bureau bi ñu ni nañu jéem a xool comme màggal jub si na nañu def benn activité mooy lan fexe tàggat waxtaan échanger ak presque bi nga xam xamante ñoo nekk Touba di ay suñu mbokki taalibe di ay journaliste loola bu ñu ko defee dinañu dimbale bu baax a baax a baax ci li ñuy def mooy lii jëmmal lii. suñu sukkandikoo ci moom ba tey di Abibou Mbaye mi nga xam ne moo yoroon seen kàddu dikkaat na ci lu yaatu ci lël boobu nga xam ne moom la ñoon amal doon tàggat ay taskatu xibaar yu nekk ci dëkk bu sell bi di Touba. ci nan lañ mën a def ba seen liggéey gën a mën a yemb ci jamonoy màggaluk Touba. je porte l'uniforme d'un présentateur fii loolu waaye kuy béykat bu am xalaat la ñëw ak xalaat di leen ko laaj itam dama gisal sama kenn kàttan ngir ngeen mën a